Le ministère bi fi dañu amone par vidéoconférence parce que situation est très nous ñu nak recteur université une moy ñu nek ci bop université yi ak jangukaay bu nga xamné euh, euh, bu yu yu université euh, campus franco sénégalais loolu lu ko waral mooy bi président de la république génnee wax ne dañoo war a xalaat naka la ñuy taxawoo xale yi pour ñu am liggéey ñoom université dañoo gis ne loolu woote boobu ñoom ñoo war a nekk ci kanam ñu ne ñoom donc dañuy daje pour xool xalaat en tant que universitaire boroom xam-xam ci naka la ñuy régler problème mu liggéeyu xale yi naka la ñuy fexe ba liggéey yi ñuy jox xale yi ci liggéey yu nga xam ne liggéey yu nga xam ne dina bàyyi sunu réew mu jëm dina fexe sunu réew mu jëm kanam mais liggéey yu nga xam ne day yàgg parce que problème bi ñu am mooy dañuy créer ay liggéey yu bëri joxe ay financement yu bëri mais société yi ñuy créer mbaay liggéey yi ñuy créer du yàgg

te loolu xale yi am nañ ci euh, li nga xam ne war nañ ko liggéey ci seen ci ñoom liggéey bi nag comme université yi ñoom jàngale mooy seen métier dinañu changer ni ñuy jàngale même bu fekkee am na formation yi nga xam ne duñ ko changer ñi fay jàng dinañ leen may ñu mën a def yeneen formation yu yu yomb par net par exemple ñu avons naka la communication nous avons ñuy demee wuti jee liggéey boobu euh, naka ngay boo amee liggéey ban nga ci entreprise bi ñu créer société démarche nga parce que loolu yëpp daf ci manqué woon loolu yëpp ñu université mettre à la disposition des étudiants que am ay plateformes nga xam ne rek niveau boo da ngay mën a jàngala sa bopp mbaa nga tasanteeg ay nit ñi nga xam ne ñoo lay jàngal ci plateforme yooyu loolu yëpp ñu mëngale ko décision bi nga xam ne président de la république jël na ko ne day joxe ay moyens yu takku pour jàppale xale yi ci fi ñuy fi seen ay problème ci bi nga xam ne moo ci gën a moom la ñu gën a identifier tey mooy problème mu liggéey bi ak njàng mi ñoom nag nee nañu tamit war nañu changer seen taxawaay comme ni ma ko waxee léegi ci ni ñuy jàngalee

mbaa ci ñetti at ñu am formation bu nga xam ne dañuy génn nekk ay cadre yu mag liggéeyal réew mi. ci àdduna bi gis nañu am nañu exemple yu bëri ay réew ba problème yi amee université ñoo def ay proposition ñu adapté ko ñu adopté ko bañ ko bañ ko bañ ko jàngee ba gis ko gis lan lañ rafetalaat ko mu régler problème yi ñu ngi ñaan yàlla mu ànd ci ci liñ jël mu sottil kook jàmm.